suñu kilifa sëñ Amdi Modou Mbend Fall xalifa général maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu ñi nga xamante ni moom lañu ñu àndal liggéey bi ñu mel ni waa hôpital Matlaboul Fawzeyni hôpital Cheikhul Khadim hôpital Jéemul Croix Rouge sans bañ leen a fàtte ak ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ fi ngir jàppale ñu ci bis bi euh, bis bi euh, liñ ciy taxaw nii muy consultation gratuite woote bisub Cheikh Ibra yaakaar naa ni dimbalee moo ci lay tàmbalee te dimbali mi ngi tàmbali ci nit ku am yaa ci wérgu yaram nga taxawu ko faj ko may ko garab jox ko rendez bu ëllëg bu bëggee suivi bu fekkee soxla nañ suivi yan yan kaa ngeen ëpp fi lu ngeen di traité rawatina xale yi ak Cheikh Ibra tàmbalee ko ci consultation gratuite yaakaar naa ne loolu lu am solo lu am amoon solo la ndaxte boo wér dafa pour nga liggéey nga am wér gu yaram naa lii mooy li nga xamante ne dëgg la liggéey dinañ créer pour ñeneen ñëw fekk si leen fa ñëw jàppale leen si ndax moo ñu wéral ñëpp kuñ ci faj rek nga tàggale ko li ngay doon jàmbat. médecin yi nga liggéey mel na ne ñu lañ ci ci ci liggéey macha allah ñoo ma fi jiitu sax <laughs> ñoo ma fi jiitu vraiment maa ngi def mention spéciale euh, docteur Ousmane Sy ndax moom tardivement ORL la mooy nekk wàllu ORL bi tardivement laa ko contacter. moo ma fi jiitu sax ne ma madame Mbacke maa ngi si mbaar mi te loolu Pastef la te loolu tàmbaliwu ko tey bépp jafe-jafe boo xamante ni dañ koy am jëmale ko si yu mel nii moom day taxaw waa hôpital Cheikhul Khadim aussi gis naa tamit seen engagement di remercier docteur Souran ak Cheikh Mbacke Faye ndax moom waroon na fi nekk sax ba jël kàddu gis nañ don de médicament bi nga xamante ni jox na ko waaye nag boppam la ko defal ndax surtout Cheikh Ibra la ndax aussi ñoom ñoom bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital na ci nuyoo bi ak ziar bi gan yi ngay wax duñu ay gan ci kër gi lañ ma tàmbalee ko ci soxna maam Bousso Mbacke mi nga xam ne mooy soxna euh, maam Bousso Mbacke mu sëñ Abdou moom soxna Rama Mbay moom sëñ Cheikh Yaara Mbay ak maam Oumy Fall moom Cheikh Ibra mooy soxna maam Bousso mii kon kooku ci kër gi la bokk du gan euh, soxna maam soxna mi di doomi sëñ Cheikh Astou Fall moom sëñ Basirou ak soxna Astou Fall Mbaar moom Cheikh Ibra kooku du gan ci kër gi waaw ñooñu laa dalal ñi samay kilifa fekk si ma fii nag ma bokk ak ñoom Cheikh Rafal gan ñi ma toog ñi samay wet soxna Ajaratu Daaro Guèye Thiam di PDG Afra Afrique Parabrise di marraine di samay doom ndey nag jóge ba Dakar ñëw jàppale sama ci bés bi ndax kat nee na nit fu mu nekk te ay bokkam fekkuñu ko fa lam fa nekk euh, kiiwut moo tax nag tey damay sant yàlla di sant sama ñaari waajur di sant Cheikh Ibrahima Fall bu wér a wér ndax lii may jiite maguma ci ëpp ma ci xel gënu ma cee xam gënu ma cee man ñoom lu ma man nag nañ xam ne ñoom ñëpp ñoom ñii la ñoo ma jàppale nekk sama ginnaaw kenn ku nekk defe nga ne boo boo deful rek du baax muy njabootu Cheikh Ibra gépp nag fukki buntu kër ak ñeent ñi nga xam ne ñoo seex Cheikh Ibrahima Fall ñëpp a ngi fi tey kenn ku nekk jëfees ak sa doole ak sa xel ak sa yéene kenn ku nekk rek loo man def nga ñu la jox jokk nga ci ba mat sëkk luñ la joxul lañ la joxoon kon nag ñu ngi sant ñëpp di sant sama mbokk yi bu baax a baax mbokk Cheikh Ibrahima fa rawati nag ñii ma bokkal sañ Touba te ñu bokk Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne saa bu ma gestoo yem ci ñoom dañ ciy jàpp nag bu baax a baax na maam bu mii bañ ko tàmbalee ba tey daf ma ne duma ci kenn duma ci man ndax yoonu Cheikh Ibrahima Fall man duma nangu kenn di ma ci man te wane na ko ñoo koy ànd ci saa yi di ko ànd ci baatin ak dooleem ak poosam ak sëñ Fallou son bu borom këram bi nga xam ne moom bañ ko tàmbalee ba tey moom it mu ngi ci suñu ginnaaw mu ngi ci suñu kan maa ngi leen sant ñëpp sant mboolem eh, njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp na gi ma ko àndal muy doomi bàyyi ak doomi bàjjen yi macha allah maa ngi leen sant di leen gërëm. bàjjen léegi taxawaayu waañ bi. Hmm. mooy waañ bi mel na ne waañ bi ni mu yànjee nii. Hmm. Eh, teel ngeen a programme liggéey bi eh, muy wàllum liy jëm ci wàllum togg mi hmm. ndax bisi mel nii mel na ne togg mi lu ci am solo la. xam Cheikh Ibrahima Fall xam ne benn rek lay def te mënoo woote bésub Cheikh Ibra Fall te bernde woo bernde bi nag ñëpp a ci sawar kenn ku nekk da cee def sa doole def ci sam xel def ci sam ñax def ci lépp la ma la waxoon daaw rek booy sant te meloo ni ko yàq boobu santoo ko ñun nag dañuy sant kuy sant Cheikh Ibrahima Fall nag sa maam nga xam ne lu ñu am soo ba goon jot moom la yéen ñii sax lu ngeen am di ko sant Cheikh Sëñ Touba war ngeen koo sant Cheikh Ibra bu wér kon nag dañoo war a sant te dañuy sant nag nag fas yéene sant nag rek ba faaw waaw. mel na ne soxna yi ñii ñu ngi ci xolli bi ñii ñu ngi ci ndawal bi ñii ñu ngi ci mel na ne togg mi bi yoon dina. juróom-ñetti fan ba léegi saa bu ñu xëyee ñu ngi ñëw bàyyi seen i kër bàyyi seen njaboot tëj seen lépp ñëw nekk ci liggéey bi di boole joxe seen alal ak seenu ñax fii lañu ñu fanaan biig di xolli di defar nekk ci toj gàtt yeeg nag yeeg boo néeg lépp lañ rey. dañoo bëgg mu xaabaabal waaw macha allah. togg bi mën nañoo xam lan lay lan lay xeetu toggin bi li muy doon. xeetu toggin yëpp rek mu teeg lépp lu murit soxla rek muy baax baax ña nga tàmbalee ca nag ya ak ca xar ya ak ca ginaar ya ca lañ nekk togg nañuy ceebu yàpp togg ceebu jën def ay miche wi def ay laaxu bisaab xam nga Baye Fall moom faaw laaxu bisaab moom mun cee ñàkk def suñuy xeeti ngurbaan yooyu daal ñu ngi ci ak miche wi yeeg lépp rek ñu ngi ci daayira Jazboul Mouride taxawaayam ci yoonu Kër Maam Sibra Jazboul Mouride moom xanaa ñu moom sax dañuy sant rek ndax Cheikh Rafal moom ku ko liggéeyal da nga gis léegi ci bëccëg dama jooy ba xaw ma fu ma nekk ñi ñu naan ma ndax luñ la wax lu la naqari ba tax ngay jooy man leen damaa sant yàlla sant Cheikh Ibrahima Fall xam ne liggéeyal Cheikh Rafal liggéeyal ku baax rek moo jëre liggéeyal te Jazboul Mouride bañ tàmbalee ba tey ñu ngi sant dañu yokk rek waaye delloo ñu ginnaaw waaw ñu sant bu baax mbooloo mépp na góor ak jigéen ñu ngi leen di sant tax seen taxawaay rafet na lool macha allah waaw jërëjëf. tey dañoo teewoon fii ci journée culturelle Cheikh Ibrahima Fall di si kontaan nag bu baax a baax ndax ñun moom am ñun mooy lu Cheikh Ibra Cheikh Ibra mooy suñu lépp wax dëgg yàlla. donc di nuyu nag suñu kilifa yi toog fii ku ñu mel ne soxna Maam Boussa Mbacke Ba ñu lay ziar bu baax la nuyu nuyu soxna Ndeye Fall bu baax ak kilifa bi toog yëpp xam naa damaa mënta wax nag waaye daal ñuy kontaan bu baax a baax si jataay bi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax ndax lii moom suñu yëf la ñu ñëpp donc ñu ngi kontaan bu baax a baax di ziar ñëpp macha allah. ñu fekk ci soxna Ndeye. ci ci bis bi. mel na ne fii sa kër a. waaw moom sa kër a. sama kër la moom wax dëgg yàlla ah soxna Ndeye dafa baax soxna Ndeye moom macha allah mu day suñu lépp wax ma dara waaye ñun bu paasee lu ñu bokk mi Cheikh Ibra dañoo bokk koo xamante ne bii muy sama yaay bi nekk France moom xaritam la léppam la donc soxna Ndeye dañoo bokk li mu baax lool nag baax lool yaatu bëgg nit donc ñuy kontaan bu baax a ci fekk si biñ ko fekk si fii ci baay Fall gi wax dëgg yàlla. jërëjëf xam naa maa mënta wax nag maa ngi jéggalu bu baax a baax. Ah, koy taxaw lépp ngir suñ daaray maam Cheikh Rafal ji jëm kanam ba ñu koy dégg fu gën a kawe kawe ci yoon wi léegi nag euh, dañ leen di expliquer nan la daara ji di doxe daara ji ni muy doxe mooy ku ñëw da ngay jënd carte membre bi yi mayoon dañ koy personnaliser def ci sa tur def ci fi nga dëkk ak sa numéro de téléphone 2000 francs lay jar moy dal sa carte d'identité cest ne nga ci bi Cheikh ibrahim ak euh, Saliou Fall ba ci Cheikh Fall mm-hmm. la carte membre bi di jariñ buñ ci loolu ñu ñëw ci porte-clé ba dañ personnalisé ku ci bëgg tamit 1000 francs lay jar dañ ciy def sa tour def numéro de téléphone bu loolu ñëw ci blog yi blog yi nga xam ne moom lañ tuddee carte barkeelu 500 francs lay commencé ba 10 000 francs kuy ñëw moo xam nga bokk ci daara ji moo xam ab soppe moo xam tey ñii ñëw seet si liggéey bi ku ci bëgg a barkeelu rek mën nga cee barkeelu mu tàmbalee ko ci téeméer ba ci ñaari junni mooy sa barkeelu wane na yow sa yëf dem na ci daara Cheikh Ibrahima

ak lim jot liggéey ci yoon wi bu loolu jàllee aussi dinañ dañ ciy rendre hommage sëñ Mouhamadou Yaddaali Fall ñu ibnu sëñ Moussa Fall ñu gën koo xamee ci sëñ Addaali moom it ay jaar-jaaram mi ngi fii di ñaan saa yokk ay leeram te ñu ci barkeem ndax moom daanaka tey bu ji taxawee Serigne Cheikh Fall jëmb di xalifa bi fi bawoo moo ñu ko jox waaye tey moom dox na ci jéego yu bari moom sëñ Mouhamadou Yaddaali ah, bu jàllee tamit sëriñ Babacar Mbaw hmm. bu ndéem mi sëñ bi yabaloon ca Mbàkke Kajoor te hmm. mu bàyyee ko fi yàggul moom tamit dañ ko ci rendre hommage mu daan fi def tamit liggéey bu am solo hmm. nii daal ku ci bëgg tamit 1000 francs lay jar ñii daal moom moo fiy liggéeyu waa commission finance ñi ngi woon ak ñëpp mbooleem fu taalibe mën a bawoo ci réew mi ak ci bitim réew ñu ñëw jàpp ci liggéeyu Saman Cheikh Ibra bi jërë ngeen